la la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 waaye mu nekk fii ci rajo Lam Fall dafa def émission bu am solo di talaatay maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo ngi ni taxaw ak moom nag jox ko kàddu gi rek moo indil ñu lenn ci kàddu yi seere ah, ci jëmm ju baax ji nga xam ne moo fi bàyyikoo di Serigne Cheikh Fall jëmb waaye ci magam ju baax nga xam ne moo wuutu woon Cheikh Ibrahima Fall waaye keroog ba mu wuy jee Serigne Cheikh jëmb Fall ah, toog toogaayu maam Cheikh Ibrahima Fall ah, bàyyi ko fi kon xam naa dañ koy jox kàddu gi rek sunu baay moo leeralal ñu dara rek ci liggéey bi waaye lenn ci jëfi Serigne Cheikh Fall jëmb yi bisimilah bay baal aousubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah ah jërë ngeen jëfati noo ngi leen di masaw ci coono yi di leen jaajëfal ci nii ngeen nekk ci yaatal ndax ah, dañu ne bërigo bu ne ci aw tund te nar a tañu ne ku ko ba ma am jaajëf fexeel ba teg ci sa loxo mooy mbirum Cheikh Ibra ah kii waral bis nag nga xam nu tegatundu ko sunuy bët waaye moom de umpale wunu li Seex Ibra nag dara am daa musta tuuti dara daray Sëriñ Tuubaa musta tuuti daray Seex Ibra musuta tuuti te sax lenn Sëriñ Tuubaa tuuti musta am ndax Seex Abdou Lahad Mbacké kat yeewoon na daa waxoon ne Sëriñ Tuubaa de li ko tax ñu man koo sant kenn ku ne defal na la lu tax bëggoo di sa morom loolu kon feeñ na Cheikh Ibra nag lépp ko ci tudd da ngay dene kooka mooma Cheikh Modou Fallilou Fall mi ma fa wóoto da koo gërëm door a dem ma ne Cheikh Modou Fallilou Fall daa gërëm Serigne Cheikh jëmb door a dem woon ko ni ko da ngaa war a jóg nag liggéeyal sa maam ba koy wax a ah wax dëgg yàlla booba Serigne Cheikh amatuñu ci moom yaakaar ak dundam waaye ndek ñoom xam nañu li ñuy def bi mu jëlee yenn bi it am na lu mu daan wax waaye fekk na mu man ko bu yàgg da daa wax ne man de bañu ma ko ma ban waaye ma joxe ba jeexal rek noonu la ko daan doxale joxe ba jeexal jumaa yi Tuubaa ji ca ña doon liggéey liggéey bala bokk ndax sëñ bee ko ca yebalan Cheikh Moustapha Fall mu nekk ca jàmbaar di ca jëwriñ ku nekk jëwriñ ci jumaay Sëriñ Tuubaa ji boo demee bay Cheikh Ibra doo yaafus am déet doo mën a yaafus lenn Cheikh Ibrahima musta yaafus rawatina ko dem ba nekk jëwriñ ci liggéeyub sëriñ Bamba bii di jumaa ji mu mel nag ni sëriñ Cheikh Fall jëmb ak njàmbaaram ma ne su ko takk cim xel ndax bi mu toogee addiye ji yokku na bi mu toogee toggum ndogu mi soppeeku na nu mu soppeekoo weeru lëm bis bu ne ginaar ak xar ak nag ñu di ko def ba mu mat weeru lëm te day ànd ak boisson ak fruits te lépp dañu naan ëpp na mbaa doy na sëkk ak jàmm loolu xam nga leneen la nga dem ci tabaski gi mu fu fukk ci la mu daan def nga dem ci gàmm gi mu jéggi dayoo te teewu ko dañu dégg waaye li ko taxam mat nag ci lu nu mën a wax kere bi mu doonee Cheikh la ba dem gàmmu ji gàmmu gu jëkk gi rek dane dañoo gàm ba ci suba sa war a yeewi ko sëriñ Cheikh Jëmb ne maa ngi leen nuyu te di leen sant te di leen jaajëfal waaye ma di leen xamal ni sëriñ Fallilou Fall mii ginnaaw yàlla dogal na maay Cheikh Ibra ci kaw suuf sëriñ Fallilou Fall mu sëñ mu damin tafaal mii moom laa def muy sama jëwriñ sama dooma te mat na ko sëkk loolee la sëriñ Cheikh Jëmb daal wax ñii gërëmaale nag di ci profito ñii nga xam ni dañu doon ay ñey xare dar ko muy sëriñ Cheikh Jimbu Sikk Sikk Cikki ak doomi Serigne Abdourahim Fall ji sëñ Abdourahim Fall mii nga xam sëñ Cheikh lañu ko tudde doomi sëñ Cheikh sëñ Abdourahim waaye sëñ Cheikh jëmb lañu ko tudde rawatina nag mégay ñang rawatina du du Omar rawatina a ah, Mor muy ki ñu wax Mor yombule nga xam ba muy doon taalibe Serigne Cheikh jëmb wéetoon na ci ak ñii nekkoon ci waañ wi nga xam ne si tudd ñëpp ak Abdou Ndiaye ak mboolem ñi fi nekk ak Ndiogou Faye ak mboolem taalibe yi fi ne ñu jàmbaare lañu ñu am positif lañu kon loola mat na leen ko sante tey sant mbooloo mi nii ñu ñëwee Serigne Touba kat moo ne isid yan faw maytan fil qubur wa yan fawul ay yow yujibul ujur moo fi indi ñii ñaan dina jëriñ ki nekk ci bàmmeel di waral ab yool ci kiy dund kon jaaji fi Cheikh Cheikh sin Cheikh jëmb ak manoreem mën ne su ko wax ci taxawaay ndax du fa xaj kon yàlla na ko yàlla doole ay daraja ak leer te yéen sunu borom doole leen dimbal